bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala saadiqi lwaxdi al amin wa ala alihi wa saxbihi ajmahin wa ridwanullahi taala al akbar an al abdil xadim wa an jamihi awliyaillahi almuxarrabin maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu sunu borom di wax bismillahi arrahmaani rahim di sant yàlla di julli di sëlmal ci ab yonanteem bi nga xam ne ku wóolu ku wóor la woon ku dëggu la woon julli googu na law ba ci ay ñoñam ak i saxaabaam mboolem seen di ñaan ngërëmal yàlla li gën màgg yàlla na dotti ci kaw jaamub yàlla bi di liggéeyaakatu yonante bi sallallahu alayhi wa sallama na waaye këram loolu na law ba ci mboolem awliyaullahi almuqarrabin ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu keppaangoog assalaatu ala nabi nuyób islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu am mbégte ñëwaat ak yéen ci sunu téere bi di muqaddamatul xidma fi salaati ala nabi rahma wala miftaaxu saada fi salaati ala xayri saada téere bu am sala boobu sëñ Tuubaa defar ko mu jëm ci julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallama tam indi ci lu mat juróom-ñaar fukki tur juróom-ñaar téeméeri tur ak ñeent fukk ci turu yonante bi sallallahu alayhi wa sallama nga xam ne nii mu ko indee nii tur wane mu julli ci ci bi sallallahu alayhi wa ci lim boobu ci ñi ko njëkk a def ci kaw suuf la bokk nii mu ko defee nii noo ngi woon ak yéen ci buntu alif bi buntu alif bi juróom ñett fukki tur ak juróom benn moo ci ne tey nag la sun fanweereelu tur ak juróom ñeent di fanweeri fanweereelu salaatu ak juróom ñeent ci buntu alif bi laa wax nag boo tàmbalee ci muhammadil abar sunu salaatu tey nag mooy allahumma salli ala sayidina wa maulana muhammadin an umillahi wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi waj'alni bi jaahihi mulaasiman li hudaahu googu mooy sunu salaatuk tey gi yàlla yàlla nga julli sëlmal yàlla nga julli ci sunu sang euh, Muhammad mi nga xam ni mooy xéewlug yàlla gi sëlmal ci moom ak i ñu ñoom nang ma def ma takkoog njubam gi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa moom mooy xéewalug sun borom xéewal gi gën a màgg gi sun borom xéewale jaam Euh, mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama mhm. mooy xewal gu màgg de gi suñ boroom xewale mi léfi mooy xewaluk suñ boroom moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama mhm. xewal ga ca gën a màgg moom la moom Seydina Muhammad nekk xéwal ñeel mbindeef yëpp mhm. mbindeef yëpp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xéwal la ci ñoom mhm. xéwal gi màgg bokk na ci xéwal yi gën a màgg mooy ni'matul islaam xéwaluk islaam te googu tamit ah Seydina Muhammad moo na ko indil Mhm. moo na ko indil kon an'umillahi mi ngi noonu mooy xewlu yàlla gi mhm. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy itam xéwal la gusun boroom xéwale jaam yi alam tara ila lazina badaloo nixmatallahi kufran am na ñu wax ne nixmatallahi googee mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yàlla moo ko xéwale génn ko ci biir xureesin def ko mu yorant mu nekk yërmande nekk xéwal ñeel mi def yëpp xoolal aaya bi alam tara ila allazina bad wala fii alam tara ila allazina badaloo nixmatallahi kufran mooy bi ma waxoon léegi nga xam ne nixmatallahi kooku foofu mooy sayidna muhammad yàlla day wax xanaa gisoo ñi nga xamee ne xéewalu yàlla gi lañu weddi ak kéefër moom lañu wattee ak kéefër yàlla yónni ci ñoom yonent ñoom waa Xuraysin mu nekk xéewal nekk yërmaane ci ñoom ñu weddi ko mhm. daal di soppali yàlla googu ak kéefal waaye wa xoolal aaya bi wa daraba allahu masalan xaaritan kaanat aminatan mutmainatan mutmainatan yaatiha risqaha raqadan min kulli makaanin fa kafarat bi anumillaahi fa kafarat bi anumillaahi googu Seydina Muhammad la ndax weddi googu ñu weddi yàlla dafa wax ne ma jox la exemple dëkk boo xam ne dafa nekkoon dëkk bu paisible dëkk bu am dal dëkk bu am sécurité wërsëgoo di ñëw ci wet gu ne ak nataanga waaye ñu weddi xéewalu yàlla gi fa kafarat bi anumillah nee nañ anhumullahi googu nag weddi googu ñu weddi anhumullahi mooy weddi gi ñu weddi Seydina Muhammad ak li mu indi ak sunu borom wax gi mu wax ne yaxrifoona nixmatallahi suma yunkiruunahaa wa aksaruhumul kaafiruun dañuy xam xéewalu yàlla ba noppi di ko weddi nee na nixmatallahi googu foofu yaani Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ay yaxrifoona nubuwwatahu suma yunkiruunahaa xam nañ ne Muhammad mii moom la yàlla yónni mooy xéwal suñu borom gi waaye di ko weddi mhm. di ko dingat di ko wedd mhm. kon sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa mi nga noonu daa bokk ci turam yi muy anumillah sunu borom joxul mi ndefam yi xéewal gu xéewalu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. te sun borom xéewale mi ci jaami daa bari de wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha mhm. xéewalu yàlla yi kenn mënu koo takk kenn mënu koo peek mhm. xéewal gi gën a màgg gi yàlla xéewale jaam yi d'une manière générale waaye en particulier xeet Seydina Muhammad mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ci xéwlu yàlla ci mbindeef mi mu yónni jaam yi mu yónni ay yonent ci jaam yi wàcc ci ñoom téere loolu xéewal gu mag a mag mhm. moo tax Seydina Muhammad xéwal la ñeel mi def yëpp moom nee na sax innama anna rahmatun muhdatun man yonent bi kat xéwal laa yërmande laa la kado yërmande laa ñeel mi def sun borom nee ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina yónneewu ma la lu nga nekk yërmande ñeel mi def yi kon xéwaluk sun borom la mu yónni wàcc ay téere yónni ay yonant wàcc alquran yónni seydina muhammad sallallahu alayhi wa ba noppi nag jox leen xéewalu mottalik sariya ci xolub Seydina Muhammad daan ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati mhm. aay bi war a des lakumul islaamu diinan mi ngi wàcc ci yonte bi ci arafa ci arafat ci atum fukkeel ba ci gàddaay ba ci aay bi ci la tasrix matee ci xolu Seydina Muhammad sallallahu alayhi ci la xéwal ak suñu borom ci jaam mhm. kon xéwal gu mag a mag la moom Seydina Muhammad yàlla yónni gim ko yónni euh, ci mbindeef mhm. mooy Seydina Muhammad nga xam ne xéwal la ñeel arab yi ñeel ajam yi arab ñoom ñëpp xéwal ci ñoom njub gim indi xéewal la ci euh, mbindeef yépp mhm. kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xéewal borom di kado yërmaande bu sun borom jox jaamam yi kon azamu nicmatin anama allah biha anama allahu biha ala saxaleyni nicmatu rasul xéewal gi gën a màgg gi yàlla jox mi ndéefam yi nit ak jinne mooy sayidna muhammad salallahu alayhi wa sallam te xéewal suñu borom mi defu ko takk euh, defu ko lim waaye yónni gi mu yónni jaamam bii di ndawam lii di xaritam bii di soppem bii di kim na ci mbindeef yi Muhammad yónni yónni kim yónni ci ci nit ñi mu jël leen ci indi leen ci leer jël leen ci ak jaamu jaamu nit jëma ci jaamu yàlla mi bind wan leen orient ay yoon yoo xam ne nii yoonu njub ak yoonu taxe moytu na ko leen yoonu alkane ak taxe di moo tax suñ borom di euh, melal xéwal googu na ne la xat lana allahu alal muminina yàlla daal xéewale na ñu gëm yàlla is ngir baxasa yónni na fi ci ñoom rasulan ab yonente min anfusihim bu bokk ci ñoom yettalu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim hmm. ba ni aaya ba jeexee hmm. kon yonente bi xéewal la gu yàlla xéewale mu lifi yonente bi taxaw taxawaay bu mat sëkk ci jottali risaale bi ko yàlla yónni ci joxe kóolute gi ko jox di laabiire xeetam yépp di bégle di xuppe bépp lu lépp luy lu baax mu tegtale ko lépp luy safaan ba mu wane ko soññe ko euh, soññi ci ñu may ñu maytalu ko mhm. nga xam ne yonent bi dafa xëri lool ci texe xeetam yi fa xëriyam ni ko sunu borom waxe laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufun rahim kon sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama mi ngi noonu xéewal ku sun borom la ku sun borom xéewale euh, mi defam yi mm-hmm. muy xéewal gim xéewale mi defi ci yónni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon xéewal gi gën a màgg gi yàlla jox mi ne fi mooy yónni gi mu yónni sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci moom kon mi ngi noonu boo ko adadee mm, da jox deux mille deux cent trente gi yëpp valeur numéro gam deux mille moom la jox loolu nag soo jëlee waaxidu waaxidu muy turu yàlla bi kenn ki 19 la boo ci yokkee ñeenti arafam yi mu jox la 23 gis nga 23 moom doo boobu nag 23 nga xam ne mooy waaxidu plus ñeenti arafam yi boo ko multiplier par 97 97 mooy huwa allahu waduudu moo la jox 2231 kon gis nga ci wàllu numéro la fi foofu lay dox waaye an um yi rek an um yi rek 161 la an umillaahi 227 la deux cent vingt sept nag mooy allahu maanihu wala deux cent vingt set mooy kaafi xawiyu boobu boole tur yàlla bi di kaafi cent onze xawiyu cent seize moo lay jox deux cent vingt sept gis nga boo jëlee wàccal ni bi jaahihi mulaasiman li hudaahu boo ko adade dala jox trois cent soixante trois cent soixante nag moom gaa yi yëngatu ci wàllu baatin xam nañ ko trois cent soixante nag mooy almaliku boo ko multiplié par quatre oh, moo la jox loolu almaliku wala boo juree dix huit oh, fois vingt xayu nga multiplié ko par waddoodu wala nga multiplié ko par haadi moo lay jox lim boobu kon gis nga ci xasida bii wala ci téere bi di muqaddamatul xidma ni ci sëñ bi di indee tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne loolu xasida gi muqaddamatul xidma day boole tagg yonent bi ak julli ci yonent bi ak di ñaan te xam nga ñett yooyu dara féete ko kaw yàlla moo njëkk tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg ko ci alxuraan intuti tax tëddoo tagga ko ci alxuraan man itti rasula faqad ataxalla tagga ko ci alxuraan ne ko wa innaka la ala xuluqin azim ba tax sëñ Tuubaa naan lil muntaxa in xaada sanaun jayid fii suratil xalami neex ma sanadu kon sunu borom moo ko njëkk a tagg sunu borom it njëkk a julli ci yont bi wane ne moom ak ay malaakaam dañuy julli ci yont bi ba faw soog a dikk leen ñu julli ci yont bi waaye ñaan mooy mu muqul xibaada ñaan mooy jëm mooy jaamu yàlla sax ñaan mooy jaamu yàlla kon gis moom la téere bi boole waaye xoolal yonent sëñ Tuubaa ba mu tàmbale ba léegi nee na yonent bi mooy al abar mooy ki a baax yonent bi mooy ka jóg màkka yonent bi mooy ki gën a ragal yàlla ci nit ñi yonent bi mooy ka gën a tabe moo gën a tabe ci ni ñi yonent bi kenn la moo gën a rafet ñëpp bind ak jikko moo gën a rafet ci nit ñi jikko ak bind moom mooy Ahmad mooy ki nga xam dañ koy sant di ko santaat mhm. mooy ki dàq sant ci mbindeef yi mooy ki nga xam ne mooy musal aw xeetam ci sawara mooy ki nga xamee ne mooy jël sarax yi di ko dajale di ko jox seen borom mooy ki mujj ñëw ci yonent yi mooy ki gën a ragal yàlla ci yonent bi ci yonent yi mooy ki ragal yàlla waaye yonent bi mooy boroom nopp bi nga xam ne lu baax rek lay déglu moo gën a jàmbaare ci nit ñi mu ëpp xel ci nit ñi moo gën a dëgg ci yàlla yonent bi moo gën a dàq xet moo gën tey xet ñëpp mooy ki gën a tedd mooy ki gën a kawe mooy ki gën a xam ci yàlla mooy ki ëpp ñu koy topp yamal xiyaam mooy ki gën a tedd mooy gën a tedd ci nit ñi moo gën a tedd ci doomu aadama yi mooy euh, imaamul xayri lu baax lépp mooy moo nekk ci njiit la mooy imaamu yorante yorante yëpp ci moom lañu rey roy mooy imaamu imaamu ñu ragal yàlla ñëpp mooy imaamu nabi in ñëpp mooy imaam sax nag far moo ne ci kanam mbindeef yëpp mooy kiy digle lu baax mooy ki nga xam ne mooy al amin ki ñu euh, mooy amin asan bi mooy al amin mooy ku ñu wóolu ki waaye mooy ki nga xam ne mooy sécurité ñeel ay baam mooy ki nga xam ne euh, du jàng du bind euh, du liir te nag xam xeetu xam-xam yëpp suñ borom xamal ko ko daan soogo nag moom mooy nag xéewal suñu borom gi kon gis nga ci biir téere bi ni ci sëñ bi di eh, eh, tàggee yonent bi ci turam yooyu waaye bu dee ci wàllu ñaan gis nga ni ni ci fooree yàlla lim ci njëkk ñaan yàlla nanga ma ci bépp tër nanga ma may ngëneel lu kawe xel wa habli bi jaaxi fadlan yi fawqal xiyaas warsuqu ni bi jaaxi an laa uxaalifa yaa samat nanga ma may yow yàlla mi samat ma bañ a wuuteeg moom wak fi nii abadan bi jaaxi addu xoola fi fi maa laa yufiit nang ma fegal ci barke bi yonent bi ma bañ a dugg ci lu amul njëriñ na nga jàpp sama loxo ci barke bi yonent bi na yonent bi jàpp sama loxo ci barkeem ba keroog àjjana waccaxlu bi jaaxi aaxisan bi yeddi il waccaxlu bi jaaxi aaxisan bi soami ila axdil xayraat na jàpp sama loxo jëma ci sama nos jëma ci la gën ci yu baax ya wàcc xanlil yow ma bi jaaxi taahira mina soxair wal kabair bis ni ko tey nag ma def ma mucc ci mm, soxair yi ak kabair yi bakkaar yu ndaw yi ak yu mujj yi wahaba lii bi jaxi kaw naka lii wa kaw ni rek bi atana na nga may ma nekkal la euh, nga nekkal ma ma nekkal la ci lu doytalu nanga ma wërsëg nag ci barke bi yonent bi gën gi ñoddi ak gën gi taxañu yoon wi nanga ma fegal lépp luy mbugal lépp luy coono ko naqar nanga ma may ci barke bi yonent bi euh, mbambulaan goo xam ne day kawe waame wahab lii jaxi fad faydan yafooxu laa na nga tàqale sama digganteeg lépp lu am lënt foofu furq bi jaaxi bay ni ubay ma fi istibaa wak fi ni bi jaaxi kulla xatar wa xaram nanga ma bépp dansé bépp waru nanga ma def may laabire xeet Seydina Muhammad wàcc xam ne bi jaaxi li ummati na tina waqbal jamii ahmaali bi jaaxi yaa man jàlla waxas na nga nangu sama jëf yëpp yow yàlla yow muy aji màgg yow muy aji tedd ji yow yàlla nanga ma def ma bokk ci xam ne seen yaram suuf du ko lekk yàlla nag ma musal ci gémmiñ yi wax sam ni bi jaaxi min afa min yàlla nag ma fekkal ci barke bi yonent bi bidaa wax fi ni bi jaaxil bidaa yàlla nag ma dolli may xam lu ma xamutoon wasid ni bi jaaxi in ma maalam ahlam nag ma musal ci ay waswaasil xannaas mhm, muy saytaan rek nag ma may ci barkeem may jéggale di jël létt bu ma xoloo wa habdi bi jaaxi an usaamaha fi daari ni wala uxaasal yow yàlla nag ma wërsëgal loo xam du jeex mu mukk war bi jaahi maa maa lahu min nafaat nang ma wërsëgale eh, ma dajeeg yonent bi tëdd koog moom war warzuqni bi jaahi liqaahu wa jiwaaruhu doon sayr yow yàlla nanga ma may ci barke bi yonent bi may ku sallal sama pas-pas sama wax samay jëf waj'alni bi la muxlisan fil ixtixaadi wal xawli wal fi wal fili nanga ma def yow yàlla ma bokk ca mu xarabin wàcc xal ni bi jaahi minal muqarrabin wàcc xal ni bi jaahi minal muttaqin nanga ma def ma bokk ca ña ragal bi jaahi maka idal liyaam nanga ma fegal ci barke bi yonent bi pexem ñu bon ñi nanga ma def may topp ndigal wàcc xal ni bi jaahi muttabihal awaamir nanga ma def ma eh, dal ci ron yàlla bëgg te gërëm ko wàcc xal ni bi jaahi taxta maa tuhibbu wa tardaa nanga ma def ma bokk ci tànneeku soppam yi wàcc xan li bi jaaxi min xiyaari ahbaab yi moom yonante bi nanga ma def may jaam bu ñu musal ba dee ñëw wàcc xan li bi jaaxi abdan mahsum ilal yaqin nag ma may ci barkeem ma am jikko yu ñu gërëm wa jut lii bi jaaxi wa jut li daxre bi jaaxi bil xuluqal mardi sooga nag wàcc xan li bi jaaxi mu laa si man dafa daaw ci la yem tey nag ma def ma takkook njubug yonante bi sallallahu alayhi wala nag ma def ma takkook njubug suñu borom kon gis nga téere bi dafa am solo lool ci wàllu ñaan am doole lool ci jullu ci yonent bi am doole lool ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla defal mbootu téere bi di dox euh, ci sunu deret di dox ci sunu jëm di dox ci sunu ruux sunu làmmiñ di ko tudd sunu xel di ko xalam waxtu wane saa su ne ñuy doole ko ab cofeel ci sëriñ Tuubaa di dolli kook cofeel ci yonente bi sallallahu alayhi wa ñuy dox ci diggante xadiim ak maxdum rek sunu yëngutu ak dal yépp na doon ci diggante xadiim ak maxdum wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.